asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu àq te di leen xubaal di jiital ci nuyoo yooyu ak ziar yi Cheikh Mountakha moom sëñ Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di ndokkeel mbokk taalibi yëpp ci àddina fu ñu mën a nekk ci màggal gu tedd gi nga xamante moom la waajal suba muy safar di mbégte murit ñëpp ñi fi teew gis ngeen ko dëkk bi dèjà fees na waaye ñi teewul it ci ñi àddina bi yëpp a ngi fii kon ñu ngi nuyu ñëpp di ci njiital Amadou Gueye Ndiaye ci commission communication bu sëñ Cheikh Abdou di rafetlu liggéeyu Magal TV di organe bi nga xamante ne peut-être moom mooy teewal murit yëpp euh, ci biir liggéey bi nga xamante ne moom la comité bi yor donc mu am collaboration bu rafet boo xamante ne dox na suñu digg ak yéen euh, mu nekk benn liggéey boo xamante ne tool bi benn la waar yi bari waaye mën nañ jàpp ne moo mooy nu euh, yeneen organes yi nga xamante ne dañuy liggéey ca nekk ci biir presse murid bi ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax wax dëgg yàlla li ngeen di def foofu ñun ngeen koy defal Euh, dañu gis na sax dafa am ci yenn ci organes yi xam ne ñu mel na ñun la ay Touba Vision ay Istikhama wala yeneen organe dañuy bàyyi li ñu doon def dem lëkkaloog intique bi di liggéey foofu xëy na ñun mënuñoo def loolu waaye collaboration bi danañ ñëw foofu léeg-léeg ñu am ay images ñu soxla wala ay interview wala dara ñëw foofu te dañ ñu koy yombalal ñun tamit la même chose lu ñu soxla bu mu fekkee fii wala mu fekk ñu terrain bi dañuy jàpp na liggéey bi lépp benn la ndax euh, li ñu ñor rek mooy liggéey sëñ Touba fexe ba vulgariser liggéey bi nga xamante ne moom la mooy njàngaleem sëñ Touba partout dans le monde te loolu am ngeen ci taxawaay bu rafet ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ñun nag suñu taxawaay daanaka euh, mën nañ koo bañ a euh, fësal daanaka ñu ngi ci ginnaaw ñeneen ñi si des yëpp télévision yeeg rajo yeeg lu fi mën a nekk dañ fay nekk en tant que tubaa Vision waaye ñi ngi fiy nekkal ñëpp pujum bi képp koo xamante ne ci presse bi en ligne wala télévision relation yu rafet dañ fi ñëw def fi seen affaire dem seen yoon plateau bi nag mi ngi nii ñu def ko buntu kër sëñ Fallou plateau Touba Vision la waaye ñëpp a ko bokk képp koo xamante ne am na fi soxla bu ñëwee dañ koy yaatal mu def liggéeyam après ñun ñu continuer suñu plateau di fa dalal ay borom xam-xam yu wuute ñenn ñu bàyyi ko ci raw duraayam ñenn ñu di suñu am di jàmm ñenn ñi bàyyi ko di ay gan yu bi bitim réew ñenn ñi di suñu xarit yoo xamante ne ay conférencier lañ ñu leen fiy dalal diiran màggal gi pour dundal màggal gi ci wàllum xam-xam ci wàllum wasaare information yi nga xamante ne mi ngaaw ci gàttal daal mën nañu tënk ne liggéey bi ñu def fii moog liggéey bi am intigre bi am feneen ak benn la xam waaw jàpp nañ ne daal euh, déroulement bi euh, mi ngi dox ni mu war a doxee seulement xat-xat liggéey ci day jafe léeg-léeg nga soxla déplacé wu à zéro mètre donc pour nga dem day jafe donc problème connexion dana fa daana faral di posé wu. cette année ci gisaguñ ko mais la plupart bokk na ci li daan gàllankoor liggéey bi mais ñu ngi am yaakaar ne pour l' instant li fi amagun daal bu continuer nii jàpp nañ ne déroulement bi du am benn problème vraiment euh, à part circulation bu jafe bi daal jàpp nañ ne mi ngi déroulé normalement. الحمد لله جرجف